tey maa ngi fàttali que ñu jël benn politique moom it ba muy door di fay waaram lu jëmale liberté de la presse ak lu jëmale pluralité de la presse kanam nekkoon ci jàmbaare ci waaru liggéey pour lu jëmale démocratie Sénégal ci kanam ñu doon ko def ak fit di ko def ak ngëm-ngëm. Wuloo xam na ko itam. ci li mu fay waaram ci wàllu diine bi ak jëmale réew kanam ak dox ay jéego yu am am solo di ko ci diine bi di ci diine politique yi pour lépp loo xam ne bii rek njëriñu ci loolu seede la ñu amoon ñaan suñu borom encore une fois a fay ko ñëw bépp jéego bu ñu mën a jéego ci lu baax Sénégal ak ci Afrique ak ci umma islamique bi moom moo di njiital parti réew mi mu doon ay seede yoo xam ni ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax euh, Pape Aliou Deme yow yaa xam naa dama la joxagul kàddu gi euh, ñu gi ñi nga xam ne nii daanaka ba ñu jógee dañ fi agsi fam euh, mu ay nit ñoo xam ni dañuy rafetlu seen teewaay fii tey parce que colère ginnaaw lay féetee waaye bi ci kanam tamit yitte doon teewoon nañ ko.